auzu billaahi mina seytaani ji bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi ñu santee waa Touba ca kanam yëpp di ci jiital Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di sant Serigne Abibou jëwriñ Touba ca kanam ak Serigne Abdou Fattah président Touba ca kanam commission des finances su commission gestion des fonds moo ñëwaat ci mois de juin di leen defal bilan mensuel bi nga xam ne saa su ne dina leen ko indil di leeral li dugg ci compte yi ak li nga xam ne moo génn ci compte yi Touba versement du mois de juin 42 millions 367 mille 211 francs Orange Money plateforme 244 621 dièse 19 millions 865 mille 917 francs Orange Money 78 544 33 33 825 000 francs Mbàkke ci njiital soxna Adja Dior Gueye Serigne Mama Fall ak Kumba Ndiaye 498 ci njiital Serigne Bousso Alaaji Ndaw Serigne Mor six millions huit cent cinquante ci njiital yaay Fatma Dieng Tiit ci njiital soxna Khady Dieng soixante Tamba ci njiital Adama Niass cinq cent mille francs fa Diourbel ci njiital soxna Daba Mbacke soxna Ndey Ndiaye Serigne Sidi Sougou Kédougou ci njiital Serigne Modou Lo deux cent quatre vingt dix Ngaay ci njiital Soxna Maguette Jiite cent mille francs Xombal ci njiital Soxna Xuma Touré Serigne Gallo Dieng cent cinquante-sept mille Thiès ci njiital sëriñ Mbaye Sall cinq cent soixante mille Louga ci njiital Serigne Moustapha Bassirou Mboub million huit cent trente mille deux cent francs Kébé ci njiital Serigne Gora Syll ci njiital Serigne Babacar Mbacké mu kàbbaroo ak Serigne Moustapha Touré un cent cinquante mille saint ci njiital Serigne Rijal Seck Soxna Rama Fall ci njiital Serigne Mor Souran un million Jogo ci njiital Serigne Bassirou Cissé cinquante mille Joal ci njiital Serigne Bassirou caw cinq cent mille Bambey ci njiital Serigne Abdou cent dix mille Goudiri ci njiital Serigne Dame Ba cinq cent Kolda ci njiital Serigne Moussa cent soixante sept mille Ourossogui ci njiital soxna Ami Mbàkke cent soixante-huit mille Casamance ci njiital sëriñ Moodu Xari Gueye cent soixante-neuf mille huit cent ci feer ci njiital sëriñ Ousmane Ndiaye cent vingt mille francs Ross ci njiital sëriñ Aliou Ñing sëriñ Dame Sourang trois cent mille Bakel Diawara ci njiital sëriñ Cheikh Anne cent mille francs Wélingara ci njiital Serigne Mbacke Gueye deux cent ci njiital Soxna Fatou Tuuti Ñang cinquante mille Matam ci njiital Serigne Daga Diouf quarante six mille Bokki Jawe ci njiital Serigne Talla Kane soixante six mille Daaru Moussi ci njiital Soxna Moussi Mbacke ak Soxna Mam Faati Mbacke cent vingt mille Sancu Baabe ci njiital Serigne Khadim Niang 77 500. ci njiital Soxna Ka 85 000. Diawbe ci njiital Baye Baara Diop 250 ci njiital Maam Bousso Ngom 10 francs. Ngunjaan ci njiital Ibra Niang 12 000 francs. Njàppandal ci njiital Soxna Abi dix neuf mille francs am na benn versement boo xam ne jaayante la toll ci cinq cent mille francs ministre Dame Diop moo ko fi indi jaare ko ci loxoy Abdoulaye Seck Sadaga député ñu koy sant bu baax a baax versement anonyme mooy versement yi nga xam ne dañoo ñëw directement ci compte bi te xamuñu yan tuura ko fa versé buñ ci seetee bi ngi ci toll ci un million neuf cent dix-sept mille huit cent cinquante-sept francs kon bu fekkee xool nañ zone nationale mooy ñi nga ñoo ne ci biir réew mi bu seetee li nga xam ne moom lañ cotisé ci mois de juin bi mi ngi toll ci quatre vingt quatre millions quatre cent trente quatre mille huit cent quatre vingt cinq francs. éclairage domestique mooy lampe yi nga xamee ni Touba ci kanam jëndaloon na ko askan wi di leen ko wecciwaat ci njëg gu yomb muy tolloog dix mille francs loolu nag ci mois de juin bi jaay nañ ci. luy tolloog un million huit cent quatre mille francs kon ñu dem ci diaspora bi njëkke ko ci zone Asie Australie njiital Amady Wade huit cent soixante quarante euh, zone Amérique Canada Serigne Pape Amar deux millions huit cent francs Mexique Serigne cent mille francs Brésil Serigne Cheikh Ndiaye deux millions cent cinquante mille États-Unis Serigne Souhaïbou Seck huit millions cent soixante sept mille six cent boo seetee zone Amérique yëpp liñ joxe ci mois de juin bi mi ngi toll ci treize millions huit cent dix mille quatre cent zone Europe Angleterre Serigne Fallou Diop un million quatre cent Suisse Serigne Ndiaga Aw trois cent mille Espagne Serigne Malick Dieng trois cent quatre mille trois cent deux francs Italie coordination bi muy kuréel ga nga xam ne ñooy taxaw Touba ci kanam ci Italie dix million huit cent soixante-douze mille trois cent douze francs dix millions huit cent mille trois cent douze francs Écosse Serigne Ousmane Ndiaye trois cent douze mille francs France coordination ba mu ñi xam ñoo koy taxaw kuréel gu koy taxaw ca France quatre millions huit cent treize mille neuf cent trente six francs bu ñu seen seetee zone Europe gépp seen versement ci juin bi mu ngi toll ci dix huit millions quatre vingt quinze mille cinq cent cinquante francs ñu dem zone Afrique Guinée Bissau Serigne Modou Atta Seck sept cent trente trois mille huit cent Maroc Albouris Seck deux cent dix neuf mille Cap-Vert Amar 512 745 Niger mam Mor ñoom 550 000 Afrique du Sud Serigne Mor Dieng 2 millions 500 000 francs Mali Serigne Aliou Waaj Mali nag dafa boole versement mois de mai ak mois de juin moo tax mu toll ci 2 millions 294 000 Gambie ci njiital Serigne Khadim Thiam un million cent trente six mille francs Côte d'Ivoire ci njiital Mor Fassa ak Mor Ali un million deux cent vingt quatre mille huit cent zone Afrique bu ñu seete li nga xam ni mooy seen addiye ci weeru juin bi mi ngi toll ci dix millions cent soixante dix mille trois cent quarante cinq kon bu fekkee seet nañ waa diaspora mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew yëpp boo ko seetee muy diggante Afrique Europe Asie Australie ak Amérique mu ngi toll ci quarante deux millions neuf cent cinquante mille cinq cent trente cinq francs bu ñu seetee ci diggante zone nationale yi ak diaspora bi li nga xam ne mooy total encaissement mooy lépp li nga xam ne moom lañ dajale ci mois de juin bi mu toll ci cent vingt millions deux cent quatre vingt deux mille cent vingt francs loolu mooy total encaissé ci mois de juin kon ñu jëm ci wàllu décaissement yi ndax euh, am na ay frais ak i chantier yoo xam ne Touba Ca Kanam saa su ne da koy def te ci lii rek la koy mën a génne ñu bëgg leen koo leeral li ci jiitu mooy chantier ndaam mooy euh, poste santé bi ñu fay taxawal vingt et un millions quatre cent dix mille six cent quinze francs université bi euh, batiment bi ñu fay taxaw ñu ngi ciy def vingt et un millions six cent quarante six mille cinq cent francs poste santé Daaru Xadim deux millions neuf cent trente quatre mille quatre vingt treize francs moom lañ fa financé poste santé Touba Ndiarène sept millions six cent quarante six mille sept cent moom lañ ca def chantier daara yi mu nekk complément 71 daara yi nga xam ni doon nañ ko defal sëriñ daara yi ci biir dëkk bi dugal nañ ci luy tolloog deux millions quatre cent huit mille cinq cent francs poste de santé Kër Gol foofu nag poste de santé bi yeggoon na depuis ca màggalu daaw gee weesu waaye nag dañ doon wut matériel médical foofu ca poste ba toll na ci quatre millions six cent quatre vingt neuf mille poste de santé boobu réel moom tamit pare woon na ca màggal ga waaye dañ ko doon wutal matériel équipement médical mu toll ci quatre millions cinq cent quarante quatre mille commission massification ci ñooy commission bi nga xam ni ñooy tasaare ak leeral ak yaatal liggéey bi joxe nañ ci luy tolloog cent trois mille commission communication mu jëm ci wàllu réseaux sociaux yi deux cent mille francs total charge fixe salaire personnel yu Touba ca kanam mooy emploi yi nga xam ne ñoo fiy liggéey seen salaire yi mi ngi toll ci deux millions quatre cent quatre-vingt commission membre muy ay bloc russie yu ñu commande mi ngi toll ci huit cent cinquante mil total budget de fonctionnement un million cinq cent soixante onze mille neuf cent. matériel plomberie pour morgue bi nga xam ne moo nekk ci penk jumaa ji defaat nañ fa trois cent trente quatre mille quatre cent quarante cinq francs bu fekkee wàllu matériel plomberie pour arrosage allée bi nga xam ne moo jëm Mbàkke ñu defoon fa ay tendrement ak pépinière yi ñu am fii ci Kër Gol def nañ fa luy tolloog cent vingt trois mille huit cent. commission logistique di commission bi nga xam ni moo yor oto yi Touba ca kanam ak chauffeur yi ak entretien oto yi ak salaire chauffeur yi def nañ ci luy tolloog trois millions trois cent huit mille sept cent dix francs. total frais siège bi muy euh, benn magasin bu ñu fi jël peinture ba location bi. ak ay caméra de surveillance yu fi def mi ngi tollu ci huit cent soixante trois mille quatre cent frais bancaires yi muy frais yi nga xam ni banques yi dañ koy dagg ci yenn compte yi mi ngi toll ci trente sept mille cent trente cinq francs total décaissement mooy li nga xam ni moom lañ génnee ci mois de juin mi ngi tolloog soixante quinze millions cent cinquante et un mille sept cent quatre vingt dix huit kon bu fekkee da nga ko ci cent vingt neuf millions cent quatre deux mille quatre cent cinquante yi nga xamee ne moom lañ amoon ci mois de juin day des cinquante quatre millions cent trente mille six cent vingt deux francs loolu nag day fekki sept cent six millions cent quatre vingt mille soixante onze francs yi nga xame ni moo nekkoon ci fin mois de mai ci compte yi buñ boolee lépp mu ngi toll sept cent soixante millions cent 317 mille 693 mooy 760 millions 317 mille 693 loolu la Touba ci kanam dajale moo jot a nekk ci compte Touba ci kanam ci fin de mois de juin bi. Touba ci kanam mi ngi sant collecteurs yëpp moo xam ne nekk ci biir réew mi ak nekk ci biir réew ndax seen jàmbaarte kat ci lañ fexe ba lii ñu dajale ñu mën koo dajale waaye nag dafa am lu am solo lu kéemtaane ci mois de juin bii. kenn ku ne xam na ni ñu ngi ci biir mbas mi waaye teewul euh, lii nga xamee ni muy cent vingt neuf millions cent quatre vingt deux mille quatre cent cinquante mooy somme boo xam ne mu ëpp luñ mës a dajale ci Touba ci kanam te ñu ngi ko njëkk a def ci digg mbas mi loolu nag day firndeel ni Serigne Touba moom liggéeyal ko xamul métti xamul neex képp ku am pas-pas liggéey ko rek na la rof rof doole joo xam ne di ko ko mën a liggéeyale kon ñuy sant bépp collecteur boo xam ne jàppale ci liggéey bi di sant waa bureau bi ak waa Touba Info mi nga xam ne ñooñu mën a jàppale ba euh, liggéey bi mën a jëm ca kanam jërë ngeen jëf